mbokki internet yi dellu nañu waat di leen di nuyu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax tey ñu ngi dalal collectif des jeune de la Médina CJM euh, seen secrétaire général Amadou Sow lañ fi dalal tey moo fi teew Amadou Sow ñu bàyyi la nga nuyoo. jërëjëf Pape Maguette. ba Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. di mm-hmm. nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo nekk di seetaan euh, ñu nekk ci internet bi di seetaan euh, mm-hmm. émission bi. Euh, di wax ne effectivement maa ngi fi teewal le collectif des jeunes de la Médina di collectif boo xamante ne dafa regrouper ndawu Médina yëpp toutes les les force vives de la Médina pour euh, lutter contre la privatisation du terrain Jaraaf. collectif boobu nag ci boo koy présenté mi ngi sosu euh, depuis def na ren pratiquement ak ak lu topp boobaak léegi ñu ngi xeex loolu collectif bu structuré la. ki ko jiitee di coordinateur bi di Amadou Dem euh, mais initiative bi c'est venu par un groupe de jeunes yoo xamante ne tey wax dëgg yàlla euh, ay doomu Médina ñoo toog xool doxalin bi nga xamante ne wax dëgg yàlla moo nekk Médina ñu gis ne bëri na lu ci jaaduwul rawatina nag affaire terrain jaraaf xale yi daal di booloo ci benn collectif pour xeex loolu waaw loolu mooy jëmmal collectif bi ci existence am. bokk na ci xeex bi nga xam moom ngeen di xeex defe naa moom mooy xeex bi gën a taxaw actuellement. Mhm. Euh, muy euh, li nga wax noonu léegi réhabilitation wala boog jëmalaat terrain bu jaraaf. Mhm. mu mel ni ki coow loolu noonu yàgg ngeen di ko xeex surtout bi ngeen taxawee dekk benn say. Mhm. taxawal seen bureau. alors mu ci nekk ay gàllankoor. expliquer. Euh, jërëjëf damay fàttali ne ci njalbeen bi ñuy tàmbali combat bi. dañu def un constat gis ne wax dëgg yàlla terrain jaraaf am na ay travaux yu ñu fa door travaux yooyu bi ñu ko dooree kenn ci ñun ku ñuy wax Lamine Diop moo ko constaté c'était un ancien joueur bi mu ko constaté mu dajale réseau relationnel yi mu am ci ñi daan football ñëpp mu xam leen waxtaan ci ak ñoom mais demander au niveau du de la mairie des informations mënuñu ko ci jox benn information mu gis ne wax dëgg yàlla bu fekkonte ne liggéey bi jaar na fi mu war a jaar ñoom ñi nga xam ne c'est des acteurs ay footballeurs lañ ay anciens footballeurs nekk dans les ASC de la Médina waroon nañ ko yëg. Hmm. kon doxalin bi ñoom ci la ñu basé wu ci constat boobu pour taxawal collectif bi hmm. noonu la collectif bi juddoo. Hmm. bi mu juddoo ci loolu dañoo bind l'autorité bi nga xamante ne moo fa nekk ci mairie bi muy Bamba Fall pour informer ko demande ko ay informations. ci li nga xamante ne mooy travaux yi ñu fa gis il était pratiquement incapable de fournir toutes les informations parce que y avait une rétention d'information kon amoon na lu lëndëm ci li nga xamante ne moom lay def ci wàllu terrain bi loolu jaaxaloon xale yi jeunesse bi yëpp ñoom aussi biñ ko bindee ñetti yoon mënuñu am tontu ñu saisir ki nga xamante ne moo am droit de contrôle sur ce que fait le maire muy le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau Mm. monsieur Djibi Diallo. Mm. bi ñu ko saisiré il vraiment fourni des des réponses xamal collectif bi que ne wax dëgg yàlla moom yëgul woon sax projet bi ñu jàpp ne kon foofu am na lu fa lëndëm. mais projet boobu muy tabax bi ñu doon tabax liggéey yi ñu fa doon liggéey lan la woon. liggéey bi ñu fa doon liggéey mm. mairie Médina dafa jékki-jékki signer un contrat de partenariat nee na partenariat public privé la entre moom ak un promoteur bu tudd Thierno Seydi. Thierno Seydi c'est lui qui représente une société bu nga xam ne dafa signer un partenariat avec la mairie de Médina contrat boobu conseil municipal yëguñu le bureau municipal yëgul le sous-préfet yëgul kon moo tax ñu jàpp ne am na lu ci jaarul yoon li ci jaarul yoon te bëri nag ñun moom la ñu fexe ci collectif bi dox ba xam ko mmh. biñ ko xamee dañu def lu ñuy wax une pétition la pétition ma fàttali ne am na valeur juridique. Mm-hmm. parce que population bi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñuy liggéey ñoom ñoo am la légitimité di ko jox ñi nga xam ne ñooñu ñoo leen jiite ñooñu am nañ droit constitué pour demander des informations mais il est incapable pour lui le maire de fournir ces informations loolu moo nekkoon jafe-jafe bu njëkk bi mm-hmm. bi mu demee ba munu ko jox xale yi dañu saisir autorité bi. autorité bi wax leen ne leen moom délibération bi nga xam ne ci la maire sukkandiku pour defar terrain bi délibération boobu baaxul parce que daf ci def clé de réserve clé de réserve moom mooy que ne tant que indilu ko contrat indilu ko autorisation de construire étude impact environnementale et le contrat wax dëgg yàlla moom délibération boobu dafa nekk sous réserve te yooyu yëpp le maire était incapable de le fournir xam nga lu tax li tax mooy gis nga projet bu ñu ko monté def euh, def ko montage projet mooy ñuy structurer un projet dafa am lu ñuy wax business plan business plan dafa am aspect technique boo xamante ni mooy la structuration du projet techniquement loolu dafay expliquer détail yépp te booy ut étude impact d'environ environnemental war nga indi éléments yooyu yépp au préfet moom mu def ay appréciation def ay enquête pour xam ko mais projet bi liñ ci doon nëbb dafa bëri moo tax nébuleuse yi ci am yépp mujj gi dafa feeñ mooy que ne maire bi amul droit signer ko yoon bi mu jaar code bi nga xamante ne moo régit le fonctionnement de la mairie muy code des collectivités mayu ko mu doxalee ni mu doxalee ndax li njëkk commission bi nga xamante ne tey moo waroon na saytu liggéey boobu muy la commission sportive commission finance ak le conseil municipal ñoom ñëpp yëguñu woon projet bi kon am na lu ci jaarul yoon. diggante partenariat bi moo tax ñun mu jaaxal ñu dañu jàpp ne diggante affaire u Demba euh, euh, euh, affaire u promoteur bi la ak le maire mais engagé wul ñun ci luñ jàpp le le le la Médina. Mm-hmm. la commune de Médina nekk doomu Médina mm-hmm. jiite Médina. Mm-hmm. ku ne Médina de jaraaf de Dakar. te bu ñu ne maire bi tamit xëy na am na benn parti wala boog am na wàll gu mat sëkk ci biir jaraaf bu Dakar léegi nag dil boobu naka la mën a amee jaraaf yëgul. kenn yëgul euh, ASC yi kenn yëgul mhm. ça veut dire li ci ñuul loolu noonu lan lay mën a tekki en tant que doomu Médina ba pare bokk jaraaf de Dakar euh, jaraaf de Dakar moomul terrain bi jaraaf terrain bi dañ ko ko cédé woon rek mu ci entrene mhm. comme club bu Médina la mais terrain boobu depuis mille depuis soixante dix ans terrain bi mu ngi existé mhm. terrain bi euh, centre d' application la woon pour ñi nga xamante ne ay normalien la ñu woon jamono ji ñu leen di former terrain bi foofu la jóge mhm. mais boo fàttali ko en 2013 mhm. bi ñuy dem ci acte 2 euh, acte 3 de la décentralisation mhm. ville de Dakar moom moo yoroon gestion wu école yooyu yëpp les domaines de compétence yi mairie amoon mayu ko woon mu doxal loolu noonu mais bi ñu ñëwee dañu bàyyee patrimoine boobu les communes commune yooyu nag ci la ko Médi mairie Médina récupéré bi mu ko récupéré mais il l'a récupéré au nom des de des populations de la Médina kon nu jeunesse bi la jeunesse su Médina mm. moo tax jeunesse bi bi ñu gisee ne seen seen wàll lañu laal mm. ñoom ñëpp ñu jug xeex li ko waral mm. mooy dañoo gis ne terrain yi ñuy fa amoon yépp pour di ci ne maire bi privatiser na ko benn terrain boobu moom moo desoon six terrains yi fa am yépp ay terrain la yu ñu privatiser boo demee ci corniche bi am na fa ñaari terrain nga dem 4C am na fa 4 terrain terrain yooyu aussi li dal terrain jaraaf moo leen dal mooy ay nit dañoo seetaan ba moom mu privatiser ko te li ci gën a doy waar mooy am na ci terrain boo xamante ne ni xaalis ba muy génne duggul ci keesu mairie Médina le maire na peut pas le justifier amul délibération mm. loola collectif bi bu paree ci xeex bi du ñàkk dana ko ci topp parce que loolu yëpp ay nébuleuse la yoo xamante ne ñun ci xeex bi dem nañ ba découvrir wax dëgg yàlla ay doxalin yu doy waar waaw ñi ngi ko ciy duut baaraam terrain yooyu ma lay wax amu ci benn ñun suñu ay enquête moo ñu permettre ñu dem ba toog ak le promoteur promoteur bi wax ñu lu leer ñun ñu fexe ba am contrat bi wan ko ko mu ne effectivement c'est le même contrat mais bi mu bi mu ne effectivement c'est le même contrat taxul mu nangu li nga xamante ne maire bi wax na ko publiquement dañoo juuyoo ñoom ñaar kon am na ñoom ñaar lu ñu tënk un compromis entre eux bu conseil municipal bi yëgul bu waa population Médina yëgul ci xayma nee nañ terrain boobu def na ci plus de cinq cent million ñun gëmuñu loolu parce que la ñu fa xayma ci ci ci bët kese jàpp nañ ne techniquement mënul yegg ci loolu te maire wax na ko beneen bi si des moom mooy la mairie de la Médina am na ci ay xaalis lu ko mën a permettre mu mën a effectivement doxal loolu mais tey defu ko parce que am na ay excédent budgétaire yoo xam ne mairie bi am na ko yu ko mënoon a permettre tey mu jël en charge loolu boo demee ci mairie yi ci dakaar nga jël mairie parcelle un milliard sept cent la maire bi def pour ñoom ñu am terrain moo Sacré-Cœur boo fa demee am nañu terrain boo demee mbaaw ak feneen ak feneen ay terrain municipal nga dem Ngor ils ont sorti de l'argent ba ci ñaari tali ah. voilà hmm. kon tey loolu la doomu Médina yi bëgg mais maire bi yàlla dafa def daf di maire bu dëgër bopp hmm. li ko waral mooy moom ñëwul pour gérer la Médina déedéet il était venu pour s'enrichir xam nga lu tax ma wax ne il était venu pour s'enrichir hmm. parce que depuis 2009 jusqu'à présent Bamba Fall bi muy jógee Italie di ñëw Médina il en difficulté financière bi mu ñëwee il était le cinquième adjoint au maire avant deux mille 2014 yàlla def na ñeenti adjoint yëpp génn nañu àdduna mu remplacer leen ba nekk maire bi mu leen remplacer ci diggante boobu Bamba am na fi patrimoine boo nga xamante ne wax dëgg yàlla toute la Médina s'inquiète il est très liquide ku jënd këru 90 millions de francs CFA biir Diamniadio cité yi gën a yi gën a luxe kooku am nga xaalis ku jënd waagu ñaay këru 35 millions jënd ko toj ko tabaxaat ko R plus 4 kooku am nga xaalis ku dem centenaire Gibraltar fekk une famille bu nekk en difficulté nga manipuler leen nax ñenn ñi ba jënd fa kër goo xam ne à hauteur de 27 millions de francs fa kooku am nga xaalis xaalis boobu nag dañu ne maire bu am euh, indemnité de trois cent mille francs CFA. plus quelque trois cent quarante mille quelque chose comme ça parce que boo ci génnee taxes yi kooku warul mën a am wax dëgg yàlla salaire boobu jàpp ñu ne en cinq ans neuf maisons nga am ko ci hmm. am des voitures de luxe am ay espace ay ay investissement yu extraordinaire nga dem ba Thiaré Azur kër gi mu fa am les gens dañu tiit dañu jàppoon ne kër gi Khalifa Sall moo ko moom mais on s'est rendu compte que c'est pas pour Khalifa Sall c'est Bamba Fall. c'est deux parcelles. kon enrichissement boobu lañu ne. jaaduwul moo tax xale yi jël lu ñuy wax def prise de conscience. Mm-hmm. mais est-ce que est-ce yi ngeen di wax nii yëpp tamit ak seen collectif bi ak li ngeen jot a xam yëpp ba li nga xamante ni mooy am-amam ngeen di koy wax est-ce que nekku leen ci benn xeexu politique boo xamante ni am na ñu nekk seen ginnaaw di leen. pour ngeen xeex ci lool parce que ñu ngi jëm ci ci ci local yi ah. très bien ci. très bien boo xoolee xeex bi trajectoire bi mu jël. Mm. moo lay wan ne dafa am logique. Mm. xam nga suite logique. Mm. une action de masse. dafa am lu koy conduire. mooy boo seetloo ay faits ñooy dajaloo. di créer ay actions. faits yi c'est des faits de constat. mooy mobiliser une dynamique d'action. collectif bi ci loolu la nekk. te mouvement de foule bu fekkente ne manipuler wuñ ko. amul capacité yooyu parce que mouvement de foule bu ñu koy manipuler day am trajectoire bu muy suivre boo xamante ne du bokk ak argumentaire de base bi ko yëkkati ñun argumentaire bi nga xam ne moom lañ tegoon ci suuf constat ci la ñu nekk ba léegi mmh. te ñi ngay wax noonu ëpp ñu jeunes yi nekk ci biir collectif bi ay ambition ëpp ñu leen ay légitimité ëpp ñu leen ay cër biir Médina mmh. parce que jeunes yi ci nekk yépp c'est des gens très crédibles mmh. c'est des gens qui la possibilité c'est-à-dire am statut wu maire fi mu toog parce que ñu ko daq jàng ñi ngi ci collectif bi ñu ko ëpp ay diplôme ëpp ko vécu aussi ëpp ko crédibilité ñi ngi ci biir collectif bi kon collectif bi amul trajectoire boobu amul benn homme politique bu la mën a wax ne am na ci mais mise amul. d'accord léegi fi ñu jeexalee mooy léegi ci phase judiciaire bi ne ngeen am ngeen foo xamante yéen a fa jëm muy ci wàllu yoon fan ngeen ci tool très bien loolu rappel la collectif bi pour ñëw ci trajectoire bi bi ñu defee constat. dañu dem waxtaan ak nit ñi def lu ñuy wax ay consultation populaire recevoir doomu Médina yëpp ñépp ñi nga xam ne ay kilifa lañu ay ay ay ay ay ndayu ay ay pénc dem waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ay leader lañ consulter leen ci question bi ñépp à l'unanimité ils se sont rendu compte que xale yi ci lu ñu nekk mooy dëgg parce que dañoo indi ay firnde luy firndeel ñun li ñuy wax su préfet bi nga xamante ne aussi moo yor contrôle bi moom it dem na ba rendre compte que ne ñun ñoo nekk ci dëgg moo tax am na yoo xam ne mënu koo defal maire pour pour sànq ko sutura parce que bu ko defee ñun danañu njort leneen moo tax it moom aussi il est là pour l'État il est là pour la population bi mu defee constat boobu wax na lu leer nañ te ñi dégg nañ ko beneen bi ci topp mooy bi ñu ci jugee ci loolu dañoo def une action de terrain alerter les autorités ne leen on veut Bamba dégage parce que dañu bëgg état du Sénégal jël ses responsabilités parce que ñoom seen bopp ñoo njëkk a gis ne waa ji nekk na ci lu jaarul yoon lu tax parce que dañ fa envoyé ay inspection ñu def fa deux mois li gën a élémentaire en comptabilité publique muy livret de compte amul à la mairie de Médina cinq chefs d'inculpation jàpp nañ ko ci 23 pièces comptables yoo xamante ne mënu ko justifier mais loolu bu amee ci réew mu mel ni Sénégal am ci période bu mel nii am ci réforme bi gën a rafet ci décentralisation muy acte trois non c'est parce que am na ñàkkul ne am na un compromis politique bi yéen a ngi dem ci yoon. kon ci phase boobu la ñu jëm ñun. Mm, mm. muy la phase judiciaire. Mm. phase judiciaire bi nag dafa obligé collective bi pour mu formaliser wu. bi ñu formaliser wu def nañ assemblée générale woote. waxtaan. mettre en place structure bi ma ñëwee sànq El Malick moom la may laaj. ne collectif dañuy wax ne structuré wu leen kon am na bureau bureau bi y a un coordonnateur y un vice coordonnateur muy Amadou Dem muy le secrétaire général di man mi le trésorier am des commissaires aux comptes am un comité exécutif am comité d'initiative am ay cellules au niveau des onze quartiers du de la Médina noonu la collectif bi structuré woo te collectif bi ci objectif boobu la nekk phase judiciaire bi nag dara ko tàmbali mooy introduire nañ une requête et nos avocats sont en train de préparer le dossier pour porter ko au niveau de la justice l'objectif c'est deux choses casser la délibération casser le contrat porter l'affaire au niveau de la justice pour que mu am une réponse judiciaire par rapport à ça mais leneen li ci topp aussi moom mooy fexe restituer le terrain à la jeunesse de la Médina mais yoon aussi def liggéeyam mooy Bamba sa place du à la mairie sa place c'est à la prison li muy def jaaduwul ci dëkk bu mel ni Sénégal bu amee nag ñu koy jàppale ci nguur gi war nañu xam ne un voyou un un un kenn du ko jàppale parce que ñun li ñu wax dañ ko teg ci lu leer man loolu laa bëggoon indi ci ay euh, wax yu gën a leer ci question yi nga xam ne posé ko jërëjëf